Birama Ndiaye. À la présentation, Pape Abdoulaye Dieye assure la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec le rappel à Dieu du troisième président de la Cinquième République française, Valéry Giscard d'Estaing. Euh, donc euh, est décédé hier à l'âge de 94 ans. Son état de santé s'était dégradé. Il était, il est décédé des suites du Covid-19, a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à nos confrères de l'AFP en précisant que ses obsèques se dérouleront dans la plus grande, dans la plus stricte intimité familiale. Et puis à Tonioba, c'est dans la commune de rurale de Djoudou-Boudou à Sédhiou, une vieille dame de 60 ans s'est donnée la mort par pendaison. Le drame a eu lieu hier mercredi matin vers mais ce n'est qu'en début d'après-midi que la dépouille a été retrouvée accrochée à un manguier. Le détail avec euh, Moussa Dramé. C'est en effet la longue absence de la vieille dame qui a alerté ses proches qui l'ont perdu de vue depuis le matin de ce mercredi. Selon plusieurs témoignages recueillis auprès des parents, elle avait l'habitude de se promener après le petit déjeuner avant de revenir se reposer à la maison. Mais ce matin-là, la vieille âgée de ans et mère de 8 enfants, tous majeurs dont 4 filles, avait décidé de mettre fin à ses jours sans le faire savoir. dissimulé dans le pagne pour se pendre sur une branche d'un manguier, rapporte une source bien renseignée. Le drame a lieu au village de Tonyataba, dans la commune rurale de Djudoubou, département de Goudamp, sur la rive gauche du fleuve Casamance. Ce n'est qu'aux environs de heures, toujours ce mercredi, que des paysans de retour des champs l'ont aperçu informé le village. Pour l'heure, aucune précision n'est encore disponible sur les mobiles de cet acte. Cependant, une surtout de la médecine traditionnelle. La même source de préciser qu'elle se portait manifestement mieux et faisait même ses besoins sans assistance quelconque. Mais hier, mardi, à son retour de Sindon, elle avait très peu échangé avec ses proches et mijoté ce projet de suicide auquel elle a joint l'acte par pendaison, affirme-t-on. Les gendarmes de la brigade de Samine et les sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d'incendie de secours de Sédu Moussa Dramé Sédhiou. Moussa Dramé sur un autre registre la situation de la campagne de commercialisation arachidière au niveau de l'usine de Diourbel est très inquiétante. Trois camions seulement ont été évacués depuis le début des opérations, une menace réelle sur les emplois et sur la filière selon les travailleurs qui ont reçu hier mercredi leur secrétaire général national Adama Ndiaye. La campagne de commercialisation bat de l'aile au niveau de Diourbel. Il n'y a que trois camions seulement qui ont été enregistrés au niveau de l'unité industrielle de la Sonacos de Diourbel, ce qui inquiète les travailleurs de la Sonacos qui craignent déjà une perte de 2000 emplois directs et indirects, mais aussi une paralysie de l'industrie locale. Samuel Ndour est le secrétaire général national des corps gras. Nous n'avons pas trouvé de camions. Il n'y a que trois camions qui ont eu à décharger, ce qui est vraiment déplorable. Non seulement ils vont tuer l'emploi, mais aussi ils vont tuer la société. Parce que la Sonacos ne peut pas rester deux années successives sans matière première. Ce qui explique cela, c'est le comportement des étrangers dans la collecte. La filière arachidière est une filière organisée où il y a des décrets, des règlements et même des la marche la filière arachide. C'est Sénégal, mais malheureusement, ces dernières années, on est en train de tout bafouer. Les travailleurs de la Sonacos proposent des solutions à l'État pour sauver la filière arachidière. C'est de collecter d'abord les semences, collecter l'arachide huilerie, ensuite collecter ce qui a exporté. Mais on a mis la charrue avant le bœuf, ce qui fait que le prix a flambé. Un plan de riposte a été concocté pour pousser les autorités compétentes à mettre de l'ordre dans la campagne. C'est de continuer la communication jusqu'à vendredi. À partir de la semaine prochaine, faire un point à pour interpeller ces derniers parce que le commerce, c'est lui qui délivre les de sortie. Le ministère de l'Agriculture, nous dépendons de lui, donc c'est lui qui devait prendre notre défense et on ne l'entend pas. Pour rappel, le kilogramme d'arachide au niveau du marché parallèle se négocie entre 300 et 350 francs contre 250 francs pour le circuit officiel. Durbel Sud FM, Madame Ndiaye. Birama Ndiaye. ci kàddu gi fas yéene leen tegtal xibaar yu mujj yi ci guddi gi ñu àndi ceek ci wàllu xarala bi kile di Pape Abdoulaye Dièye yooye xibaar ñu doore ko ci ñetteelu président bu cinquième république bu réewum France di Valéry Giscard d'Estaing moom nag daal dina dëddu àdduna moo ngi jiitoon France niki atum 1974 jàpp atum 1981 loole nag bu nekki démb bu muy am juróom-ñeent fukki at ak ñeent euh, bu ñu sukkandikoo ci xaatim bi nga xamante ne njabootam daal dina ko fusal jàpp nañ ne nag wërgu yaram dafa daal di woon xejam fan yi ñu génn ba tax rek ñu jàpp ne li la di mbas mi moo ko mujjee fàtt loole lañu ñu mun a euh, yër ci xët bi nga xamante ne daal dinañ ko fusal jàpp ne nag lii la ci ay dëjëm lu ca gën a ëpp waaye njabootam ñoom ñoo koy taxawee. Euh, loole moo daal di ruuse ci xaatim nga xamante ne njabootu njiitu réewum France ba woon di Valéry Giscard d'Estaing daal di na ko fësal ni ki démb ginnaaw bu mu làqoo àdduna ca Toñaata ba nekk ca commune bu juddu bu foofee ca Sédhiou benn soxna bu am juróom benn fukki at moo daal di faat boppam wala boog dafa daal di xaru takk boppam ci benn garab loole niki démb la amoon wante nag yéex nañoo gis li la di néewam ba tax rek sapeur pompier ak gendarmerie daal di ci am taxawaay bu am solo Moussa Dramé. gannaaw buñ toogee ci biiru yàgg gis nañ ko it ba mu ndekkee ba pare daal doxantu comme ni mu ko aadawoo di ko amal saa benn fukki at it dafa gannaaw woon benn buum boo xam ne daf ko lëmas woon ci sër bi mu daal dem ba ci àll bi it fu sorewul dara ak it kër yi daal di laxas baatam ci benn mango boo xam ne fa la lonk woon daal di ci xaru li ni mel mu nga xewee ci àllarba bi ci dëkk bi di Togna Taba féetewu ci commune Dioudoubou ci département Goudomp sorewul dara ak it dex bi lay di fleuve Casamance soxna si lay mag la te am na ay bant toll ci juróom-ñett doom ñoo xam ne it ay mag lañu ñeent yi nekk ay jigéen ci boori ñaari waxtu ci njolloor bi daal di ko xamle ci dëkk bi fi toll nii it xamaguñu lu leer lan moo waral li ni mel waaye nee ñu it soxna si it amoon na benn jamono joo xam ne dafa woppoon mu doon faju ji fu nekk root na fajum ñuul ñi duppe mu bàyyi ko foofa it naka démb talaata waaye it bu loo xam ne moom la weccante askan wi dëkkee ci foofu la it ñoo xam ne it ñoo di waa këram ci suba si it gannaaw ba mu ndekki mu daal di doxantu it comme na mu ko adawoo di ko def ndekki dafa mujjee yegg si ci àll yi it dal ci lonk boppam mu dal ci jaare ñàkk bakkanam ci kaddu yoo xam ne jot nañ kaa taataan sandarme yu nekk ci brigade bu Samina ànd ceek sapeur pompier yu nekk ci 43e compagnie d'incendie de secours bu Sédhiou dañoo dem ne meeku li ne mel am it l'enquête buñ ci ubbi waaye it bu ñuy dëpp dañuy yóbbaale néew bi it jëmale ko ci boori Goudomp ki ci doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM Moussa Dramé ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci lu jëm ci wàllu campagne commercialisation bu njaayum gerte bi foofee ca Njaarim bu ñu dooree ba ndege si ñetti camion kot la ñu gis ne moom moo fa daal di bàyyeekoo loolee nag daal di na andi njàqare ca ña fay liggéey Adama Ndiaye. campagne traite ak gerte gi mu ngi dox doxinu kàkkatar fii ci diwaanu Diourbel ñetti camion la usine bu njaareem collecté gum loolu nag indi njàqare ci liggéeykat yi nga xamante ne ñoo fa nekk ba ñu ngi tiit sax lu tollook ñaari junne emplois direct ak indirect ñu ñàkk ko waaye it li jëm ci usine bi ci Thiembaye Ndiaye mooy secretaire général adjoint bu syndicat des corps gras. yàgg nañu attirer attention nekk am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di jël gerte gi di proposer ay prix yoo xam ne société yi def huile mënuñu ko jot parce que tam waxtaan wax dëgg sa am na prix yoo xam ne ci gerte gi mën nañu la jënd xaalis pour jënd loolu liggéey pour rey société yi la parce que mënuñu ci génn liggéeykat yooyu nag am am ay xalaat ya nga xamante ne am nañ ko ngir ñu mën a sowe li jëm ci wàllu filière gerte gi nga xamante ne jamono yi doxul dara. arbitre du mun la seetaan ñi dàq football te néew doole ñi leen ëpp doole di leen part de saa bu ñu laalee bal c'est pas possible donc li mën a nekk mooy arbitre bi ku ne da lay yemale sa place nga nekk fa ñi gerte gi def nañ ci prix boo xam ne ku ko jaayee sa ñuy jënd si ñëpp mais dem ci usine yi jënd gerte mu am valeur ajoutée. ab plan ñoom def nañ ko ngir puus ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ñu del ci ginnaaw ci li ni mel Ibrahima Diallo moom mooy porte parole bu syndicat national de corps gras. jën yi jaay nañ ko ay licence gerte gi ñu ngi ko bëgg a wax chinois yi boor bii xam ne mooy le nord boo leen joxul liggéey bu ñu amul moto Jakarta ku leen ko financé dañuy jël gaal gi dem bar sax parce que nit yi dañoo bëgg a falu rek fonctionnaire yépp dañuy def politique de guerre ku ci am possibilité nit rek da ngay signé benn kayit goo xam ne da leen di xaalis te président bi taxaw gerte gi ñu ngi koy jaay juróom benn fukk ak benn jàpp juróom ñaar fukk wuute lool ak juróom fukk bi nga xamante ne moom la nguur gi recommandé Diourbel Sud FM Adama Ndiaye Birama mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi sant leen gërëm leen gërëm bu baax Pape Abdoulaye Dieye mi féete woon ci xarala gi ci kanam tuuti bu juróom benn waxtu jotee ba teg fanweeri simili rédaction bi dina fi ñëwaat yaatal ko ci français ak ci wolof laata loolu ñu bàyyi leen ak taal leen làmp yi ngeen ànd ceeg Alioune Badara Socé ñu leen di ñaanal panaanub jàmm